dama leen koy jël exclusivité xam ki ma yoroon fii ma ne leen li ma fii wasaare ma man damaa xam ki ma yor Sénégal yi da ngaa bëri wax ma ne leen wax damaa fees Balla Gaye damaa kontaan combat bi yëpp ma la kontaagal ak soo ko sim soo gisee may stressé woon xam ay ay. ay waaw parce que damaa seetaane entraînement am te gisuñu ma. ma xool li Balla Gaye di contact quatre heures lañu dugg Tivaouane Peulh ba guddi su ma mbëkkee ba sonn génn soo ko sim dugg mayuñu dara barki Seydine damaa daan xaw ma damaa daan ba gaañ ma sama pooj sama cuisse derrière bi te man xale man nit ëpp ma doole Balla Gaye di ma këlli këllee moo tax ma xamante ji yàlla rek moo des mais bu yàlla bu yàlla attee Balla Gaye day duma day daan man daan gi neexuma de duma gi Balla dóor na ko yóbbu ko dóor nañ ko yóbbu ko barke Alxuraan su ko Balla daaloon te yóbbu ko ardo du ma neex waaye li ma metti nag dañu ko wax naan gàllaaj du gàllaaj Balla daa xam tafaatin tafaa bëggul ko koy dóor tafaa soo taxawee ne dóoroo moom su la yow nga yàqu Balla nag bala kaa tafaa dóor day commencé yi tekk naa rojoy nag yéen ñuy wax commentaire yi damay wax lii moom ma gën a sama ndam man parce que daa jël combat bi jox gone école bi ñoom yuusu ñëpp nañ dem sama waajaa ngi nii moo ma ko waxoon billaay moom ma ko waxoon kenn moom donc li ma waxoon si ngoon fan nga ba li ma waxoon lépp noonu la demee mbirum sunu borom la rek maa ngi sant sëñ Tuubaa bu baax nag waaw sant nga jàmbaar waaw lépp sëriñ bi yàlla yàlla may xéwal bi màggal day jàmbaar rek day jàmbaar waaw moom moom moom moom wala waaw moom moo la man lay bañ Balla moo la man lay bañ. waaw billaahi. saa moo la man dana duma kan ko waaw gor amin amin xool sedd na Balla Gaye 2. kenn du Balla gay 2. na ngeen def ana Balla Gaye. ñëw nga ñëw nga. asagul la Balla Gaye tegoon combat bi si loxoom. Youssou Ndour muy jàmbaar. soo gisee ma ñëw ba si Youssou mi moom la Balla Gaye tegoon combat si loxoom mu daj si ay coono soo gisee ma demoon ba ba tigrous parce que ni mu jëlee tey ko jox ko xale école bi teg ko si loxo Youssou mi Youssou di yëgoo man suba ngoon guddeeg bëccëg lu ma ko wax xeebu ko nag mooy loolu mooy yaatal ndax moom nañoo xeeb luñ ko wax du ko def mais Youssou nii luñ luñ gis na ko acca mën a acca waaw ah, ginnaaw ñu seede yàlla jul sant bi sant suñu ñaari waajur di nuyu géej waay bépp di nuyu ñu doon ñaanal ku si mel papa Sëñ Cheikh papa Idi papa bu baax a baax a baax ñu doon ñaanal si bi di siyaare ñëpp nag di ñaanal géejawaay jàmm di wax tay xool yëpp seet na ndigal lu mu wax moom sama waay la man mooy sama sëriñ. waaw li mu bëree mooy consigne rek tey ñun bëri ñoo ko conseil ay course de ñun ñoo ne ko dalal tafaatin day ñëw sa kaw waaw si mel ni ndigal mel ni gàqu de ndax gàqu day dox si yàgg ndax Omar tey lan la. mais noonu la ndax daa ñëw gis ay raqam ñun ñi ñëpp ñu bëri daan. ñëpp daan ñëpp daan géej ñun suñu école moom kese moo fa desoon. kon tey dafa ñoo sigil ren suñu école mooy jël P bii moo nekk 32 victoire waaw. avant lamb la ma ko Youssou wax na ma Youssou daal ñëw ne ma ndigal ma ne ko dañuy yóbbu Balla Gaye ardo tey mu ne ma changé naa ko dinaa ko yóbbu ardo dinaa ko daan waaw non xam rek lépp suñu borom la rek dañu nekkal ay kilifa non loolu nekkal ay kilifa loolu nekkal ay kilifa <laughs> loolu nekkal ay kilifa moom tamit yàlla ko yàlla fal ca nekk baax la Youssou bu baax la waaw ndax ndigal moom tamit borom baax la sama xarit la tey père Balla mel na tey Youssou dafa ñëw te bàyyam moo def Balla Gaye nii ko yàlla def kon Youssou bu ñëwee taxaw tey wàcc na di wax Balla Gaye dé na bàyyi xel nag li xew tey te xam ne affaire foofu la waaw li des mooy yokkaat entraînement yi rek ndax ñun dañu dañu am lu ñu soxla ñun xale yi du moom de ñun ñoo morceau yu vert takkal ko ñëpp parce que combat bi dama ñëw ba bàyyi ko ñëpp ba sama koñ di ko fi defee man fii laa doon waajee sama combat bëriki démb kon tey bu fi ñëwee defee fi loolu man dama dama yaa beneen combat dama sasaatoon mbokk yi mu doon ñaa nam ndax bu leen xewoon ngi ne walla tax mu bàyyi fa mu daan ngemboo moo taxoon ma ma chargé ngeen ma Balla far fos day daan tafaatin. loolu Youssou ma ko dee woon. <laughs> moom mooy sama sëriñ de. Youssou ma ko dee woon ndigal. man ndigal la tax tey ma ñëw sodde ragal pété day xañ a wërsëg. waaw xam nga lu waral loolu nag. rëbbkat day xiif ak a mar. maa mu nangoo guddee. maa du fetal luñ taamu. làmbu tey wii làmbu jom la ak ngar mi ak njàmbaar ba lu la yàlla may nga yu ànd ak say mbokk wante bisu tey bii di 21 di bisimilahi rahmaani rahim bala Gaye daa tàmbaliwaat yàlla na borom bi may ko nag mu yeggaleeg sagoom waaw laa ilaha illallah cant day ma ne ñun ñu ci cant gi xam dax cant day dolli ngëmub jaam ca biir xool ba segam dara nga ca ñun esa bi dañoo sant bay sar xolle sant bu demee ba nirootul tiitaru rek santoo waaw ndax lépp dañ koy delloowaat buur bi nag waaw borom jalla jalaaloo moom rek a mën ndam ak ko koo yomb moo tax dañ ko ko ñaan dagaan ko yalwaan ko ko mu defal ñu ko sant nañ bu wér nag waaw moom nag xamul ñu koy wax na jàpp ay mbokkam waaw. macha allah. waaw waaw. ñu leen di siyaar bu baax. te dañoo gis nga ñëw takku. xuloo nga tey xeex nga. réer nga rek pour accompagner Balla kay yow mi sax oh, Souleymane dañ laa fayoon tey wala géejawaay la yee. non maam tey dama jë takk samay bagage war a dem Masalik Majaali ndigal yow laay waxal war a dem Masalik Majaali lu jëm ci mbalem tubaab bi ma romb ci biir koñ bi Balla Gaye war fee ngemboo tey sa koñ yow laa njëkk dajal di la woo mais boobu yaa ngi joxe sarax yi bi ma ñëwee ma yëg ci kaw di di laaj ci Juma Njaay Juma Njaay ne ma uldukaay ma ñëw mu ne ma combat bi loo ci mën a jàpp jàpp ko ci te Juma suñuy jigéen la. yàlla dëgg rek la bëgg lu métti métti nañ waxante dëgg Balla Gaye di suñu mbër tey jii barki alxuraanu karim bii ci guddi bi may tëdd damaa def samay sama samay ñaan ñaanal ko yàlla suturaal ko ndax daa am lu ñu dund am fuñ jaar mu nekk Baye Fall pire di murit saadix làmb nag dogalu suñ borom la dañ koy ñaanal te di ko ñaan nag liñ koy ñaan mooy li mu jàppoon ba ba yàlla may ko ndam ci combat bi loolu bu mu ko bàyyi bu dem fu mu war a dem na fa delluwaat bu dee lu mu lu mu doon lu mu doon lu mu doon lu doon raasaat na dem raasaat ko. waaw waaw. ñi xam na loolu. loolu taarix la xam lu ko def taarix. Balla Gaye depuis combat yu ndaw yi. ndigal njaay mi xam na li may wax. kër gi ñaari mbër lañ am. géejawaay bu bu ci mbër taxaw leen jàppale te ne buñ ci dara muy ndigal mi ak Balla ndigal mi combat waññewoon combat bu dee fukki combat juróom-ñeent yëpp. mën naa ne waa kër gee ko të ñoo ko tëgg kon ñii ñii ku ñii ku leen bëgg ñu bëgg la man ndigal mi aw ma ku dul moom barki alxuraanu karim bu tey jii bu ma nekkoon tegal mi ko mu teg ko jox ma cër te pourtant maguma ko jox ma sama wàll ci boppam ba pare maanaam bëgg Balla Gaye 2 Balla Gaye ma dama ne ko man li ma koy wax mooy booy yi na na bëri pour booy yi parce que booy tey li ñuy daj ci combat am ñoom seen i sax duñ ko ci daj man ndigal mi ngi nii dama naan ko carrément defal dara mu bañ tey laata may wax ak moom dibi bi mu bëree ba tey waxuma ak moom tey dama ko woo ba ci balcon mu déglu ma li ma ko wax yëpp dafa taxaw déglu ma te loolu baala bëgg Balla Gaye daana ko waral Balla Gaye li ma lay wax mooy booy yi gën leen a bàyyi xel te xam ne li leen gisee carrière moom moo ko booy yi ñoo ko moom li ñuy li la lépp lu lay may ndam boo leen ko waxee bu dee xëy nañ ci xëy bu dee gont nañ ci gont ñu lay ñaana nag yàlla gën laa dolli sutura waaw lii nii ñu lay defal yàlla rek tax ñu defal la ko du leneen jërëjëf jërëjëf saa yi ne ñu jëlal ko. mais daal sàll. yow noo ko bëggee rek. incha ah, juma ngi nii. sama xarit kii mooy Juma boo déggee ñaan Juma Ndiaye kii sama combat bi moo ma lël fii laa doon ba maag armée fii laa def un mois mu may jox yàpp li may jox ginnaaw si gën a oyof ak furi Balla Gaye dem bi mu soxlaa ndam fii la ñëw ndax kii bàyyi ma ko ñaan xolam daa rafet barke sëñ Touba kum ngeen mu nga am ndam ngi nii Juma Seex Saw Juba li ndamu bayaale la. ndamu bayaale la rek loolu rek lañ ci mën a wax ndamu bayaale la. seen bayaale dafa tabe. seen papa bayaale dafa sonnal ma dafa sonnal ñu baax. kuy sonnal Seydou Aboubacar. Alima jigéen baayu bayaale Ndiaye. Serigne Babacar dana ko woon Alima jigéen loo bëgg. mu ne ko fu may tuuree sama ñaq. mu ne ko di nga bay laaj ba laaj dootula laaj dara ma jigéen nag bu ma saan di jaay ndànd faal dañuy tëgg ay bool ne tey ma jigéen jaxu mooy jaay si ku jaay doo jaral badaloo dana ko woon jàkk poor ne ko ak ne Fabinta Mbaye ku jur kii mu ne ko ma jigéen jaxu mbaye ku jur ca mi bas Njaay mu ne ko ku ma jigéen jur bu ñëwee ci poor bi bu fi amee ñaar fukki at ndakaaru dina la lebal dina ma lebal aale sama baay nag aale ma jigéen jur ko Abdou Sega Ndiaye jur ko gën gi Aziz Ndiaye gën daa yàgg te da leen di gën da leen di yàgg a gën ndax aale Ndiaye baayam daa gën ci kër Serigne Babacar ëttu Serigne Babacar boo fa taxawee ne aali ma jigéen ay sama maam du maamu élastique moo jur aale Ndiaye mu jur ñu mu ànd ak Masata Ndiaye suñu xalifa ba ci ki gën a ndaw kër aale Ndiaye takku say lañ boo ci roccee benn ñëpp dañuy tasaaroo. Balla sama baay liggéeyul ci réew mi lu ak njabootam di tasaaroo te Balla Gaye mi ngi ci biir njaboot gi duubalee sa ne woon Aziz Ndiaye jàkk ne ko jàppal Balla Gaye mii Balla Gaye dama leen di wax ne làmb booleetuñu famille lañu buri bàcc ne nangu na ko mais Sadio nangu na ko sa Salif nangu na ko ku ko bañ suñu yoon nekku ci ñëpp ko nangu Balla Gaye sax li mën a am fii daxaa mën a am si àdduna ndax bu méttee ñëw yéen rek lay gis duñ ci daw dara Balla Gaye duñ ci daw dara famille la te Baye Allé ko jàpp ci loxoom te Tiwaawan Malick Gakou andi ko mu ne ko Balla Gaye ko naa mu ne ko man sa baay laa boo yéegee ci sama kaw oto nag ma wàcce la duma la wàcce mukk yow sama sama doom nga loolu Malick Gakou moo ko def kon Balla Gaye yàlla na ko ndam li jik Aziz Ndiaye nag xool leen ko bu baax bu ko gën piis du jël defet Ndiaye Diatta dégg nga la wax si Aziz Ndiaye parce que baayam da kaa gërëm Aziz moom lu ñaari waajur du may du ko ñàkk man maa si xam dara ñu dem suuf ah. mais ndigal ndigal te dañoo kontaan Youssou te dañoo bëgg parce que Balla Gaye instant bu ko neexee sax bàyyi bëree xamul tax indi nañu lu ne combat bi moo ko jëlal boppam. lan nga mënta nekk. combat bi moo ko jëlal boppam te mosul ma Balla Gaye jëlal boppam combat da koy indi da koy indi ba mu jeex te waxoon na dama aay ci luur gars yi xamuñu ko mën leen tafaatin yéen la jaaxal mais jaaxaluma instant xam na lañ soxla. Ah, am nañ roi am nañ empereur la moo des. bu baax na